dikk nan tey gërëm di way ak a soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wuur na yaanu jox seyxi bamba jaara ma jaara jaaratullaay muy turam wañu tan jaamu yàlla ak ba doon soxna jaara soxna baalik maam bu sambaañu ne jaara am nga tawfiix ku gëm fabal tudde jaara dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta tànk ci géejëm gi saxoo du su géeb te tibb ci xéewal yi kor dellu sedduwaat maam jaara nawet baa ngi waamew waa ngi di wal fu lu waay tax mu sax meññ na toloo gum mu séqi waat maam jaara ku dëkkaale ak yàlla ba jobaa ngi ni xudwatu saalihaat maam jaara lu jim njaaga maam jaara di njaag umu say xanaa am ndab lu fees lii dellu kuy ñëw di rekk xaat maam jaara ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax a baax di leen siyaare yéen waa télé bi di leen ñaanal bu baax baax a baax suñu boroom yokku leen bu baax a baax a baax ba lépp lu ngeen mën ren déwén ngeen mën loo ko faw xa ci barke soxna jaaratullaahi ndax borom bés bi maanaam mën na ko te it antan na ko ndax ku xool poroxaan bu njëkk ak bu léegi xam ne yaatu na te dañ leen koy ñaanal ni dëkk bi lawe télé bi tamit dem ba lawee noonu ci barke soxna jaaratullaahi ñuy sant bu baax a baax tamit suñu bàjjen bi nga xamante ni moo ne ci dal bi muy soxna Maane Caam nga xamante ni moom modèle la exemplaire la tey royukaay la ndax femme brave la barki Serigne Touba moom it dañ koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm ndax lépp lu mu mën ren rek déwén mu mën lu ko ëpp tamit ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax a baax ndax ñun dañ koy xoolee dem si yàlla si yàlla na yàlla yokki leeram muy Aida Ndiaye Badaloo nga xamante ni jàmbaaru Xelkom jàmbaari Poroxaan la woon te taxawaay bi nga xamante amoon na ko moom soxna si taxawaay boobu la yor ci Poroxaan ko doxal. te it ñu gis ko te teg ci suñu bët barki Serigne Touba dañ koy ñaanal baax a baax a baax soxna si yokk ba mu yëg ko barki Serigne Touba ñu nit ñu yàgg ko teewee ñu ñun ñëpp ñu yàgg ko teewee kenn ku ci nekk maanaam di ci def sa xéwal suñu yaay tamit ñu ngi leen di ñaanal ndax gannaaw lii yëpp ñoom la ndax ñoo ñu teete ci yoonu Serigne bi maanaam ba tey jii nii ñu ñeme ñëw di nekk ci waar wi kon ñoom it am nañ amal nañ leen ak cant. maanaam man mën naa ni maay jëriñu organisation bi waaw man la man la jëriñ bi kon yan daal sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax sant nañ leen bu baax a baax a baax waaw di sant di ni ko suñu yaay ji di waxee rek maanaam soxna si maanaam liggéeyam yamul fii nii yamu yamul fii senegal rek ndax ba France dafa yor ay daayra diaspora bi fépp fépp fépp maanaam dafa yor ay daayra soxna jaara ba ci parrainage bi nga xam dañ da ciy liggéey liggéey bu am solo di jël ay xale ay ay plus de dizaine de xale chaque année nga leen di fayal pendant sept ans ñu toog ci daara ji maanaam looloo yombul maanaam liggéey sa alal ba mu lew la nga waroon ko mën a def ci leneen ak leneen surtout si jigéen sax maanaam bàyyi lépp def ko ci yoonu siraatal mustaqiim jàppale soxna jaaratullaahi kon kooku maanaam dañ koy ñaanal rek barki Serigne tubaa dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax suñu borom yokk ko ba mu yëg ko barki Serigne Touba. waaw ñun moom dañ koy ñaanal rek ñun dañ koy ñaanal rek li ma koy wax chaque jour ñun amuñu luñ la war a kii wak la mais dañ lay kalaameeg sëriñ bi waaw fa lañ toll moom suñu diggante moom foofu lañ toll dañ koy kalaameeg sëriñ bi rek waaw sant nañ leen bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah Tëngéej ante bu yaay présidente bi man maa ci topp ñun ñëpp ñoom Aji Ndiaye ñooy doxal daayira bi ñu ngi sant yàlla bu baax nag ndax daayira maam jaare bi ñu maane ci am dugal dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw ndax liggéey bi ñu ciy liggéey maam jaara lañ koy liggéeyal te bu ñu demee ba di ci liggéey nii ba di ci sonn yàlla ak maane caama tax ndax moo ñu ci dugal boole ñu ci maane nag amuñu fayam yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko maam jaara fay yàlla ko sëñ Touba fay man jey ba ma taalu bi sëñ Seex Waalo laa bu sëñ Modou bu sëñ bu sëñ Modou Moustapha waaye nag takku liggéey bii dama koy def sax ca Touba kon nag bu ma ñëwee ci maam jaara bi dama ciy def te yàlla ak maane caam nag moo ñu sosol lii dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ay xéewal yal na yàlla guddal fanam ñu fekke ko ñun ñëpp. di koy soxna jaara ñun dañuy rey sax ci soxna maane ñun ndax soxna maane yor na ji koy soxna jaara yàlla xam na ko du seen teewaay bi de moo tax. waa yor na ji soxna jaara di koy yor ji koy soxna jaara nag yombul waaye ñu ngi ciy jéem suñu kéemtalaay kàttan ah ñu ngi yàlla yàlla suñu borom bi yal nañu def ñu yor ji koy soxna jaara. waaw loolu la ñuy ñaan suñu borom bi ndax si koy ji koy soxna jaara tey boo ko doon misaal fii sax mën nga fee fanaan mën nga fee fanaan boo ko dee waxit mën nga fee fanaan waaye yal nañu yàlla jàppale ba ñu yor ji koy soxna jaara soxna Maane Thiam moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom bi li mu bëgg yal na ko yàlla defal tey jii lii ngeen ñëwee fii du hasard ndax dafa ñëw rek daa ñëw rek ñu daggal ko daa ñëw rek ñu ne ko yow soxna Mané incha rabbu yow pàkk rek lañ la man te dañ ko dagal ba mu doy kon macha allah yal nañu yàlla lafal cat yal nañu yàlla jàppale moom it yal na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla jàppale ba lépp lu mu liggéey bëgg koo soobu ànd kook ñun te ànd kook ñun ñu liggéeyal soxna jaara sant yàlla julli ci Muhammad salallaahu salaam sang-sang yi mi ñuy sàkk ba ñu mën a taxaw fii te may ñu wér ak wér la ci barke Muhammad barke sëñ Touba. barke maam jaar mi ñu fi indi ginnaaw yàlla yonente bi nag maam jaara tax ñu ñëw fi ñun ñu fi daje ñëpp ay doomi ndey lañu jaam bi Kole Njaay laa tudd jàmbur dajewu fi ñun ñu fi nekk ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fii suñuy yumpaañ ngi fi suñuy tantaa ngi fi suñuy jabar a ngi fi suñuy càmmañ a ngi fi suñuy doomi ndey a ngi fi famille la famille la famille bi ñu fi nekkee nag dañoo jàpp ñun di murit di liggéeyal maam jaara te yàlla tax ci kaw barke maana caam mi nga xam ne moo jiite jiite moo jiite yoon wi moo ñu ko faal euh, ba lii am tey xam ngeen ne tey jii ku fi daje di ngeen xam ne sant yàlla ñi fi daje mbooloo la te lépp ngir yàlla ak yonente bi moom la bi ñu fi taxawee nag maam jaara moo ñu fi taxa taxaw di ko liggéeyal te yàlla tax ci daraje Muhammad man pres maay présidentu Dakar bi di Kole Ndiaye Anta Thiam mooy sunu jëwriñ maam Diarra Guèye mele mooy sunu euh, trésorière daayira Tëngéej bi Anta Buya Thiam mooy présidente bi Dieynaba Mar mooy adjoint ñu ëlbatiku nag boole lépp muy benn bu ñu jógee Dakar dañuy jógee Dakar jaar fi jël waa waa waa kii yi ko teeti waa Tëngéej ñu ñëw bokk ndey bokk bàyyi def màggal gi ba mu jeex màggal gi ñuy def nag dañuy ñaan yàlla yàlla nañ ko def at yu bëree bëri kenn bañ a wuute si barke maam jaara yàlla nañu koy def at yu bëree bëri kenn bañ a wuute gis ngeen ñuy ñëw nii borom bula blanc yi borom bax yi su nuy dëkkandoo lañu ñoom ñëpp ñi nga jóge Touba ñee nga jóge Casamance ñi nga jóge Njaare wante bi ñu dajee fii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax maam jaaraa ñu tax a jóg te moom la ñuy liggéeyal moo tax bi ñu ñëwee tey ñu wooyi leen ñu ñëw taxaw fekke bés bi taxawaay bii kon yàlla nañ ko def at yu bari te kenn bañ a wuute ñun ñu fi daje ñëpp yàlla nañ fi yàlla may wér nii ñu fi duggee ci bisimilah yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilah rabi alamina yàlla tegaal ñu ci jàmm ci salaam ñu di ko def at yu baree bare baree ba ñu kenn bañ a wuute te mbooloo mi gën a yokku yéen waa télé bi tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndaxte ji lii ngeen def dafa rëy lool rëy na lool kon yàlla na télé bi gën a dem ca kanam. ca kaw ca kanam ci barke maam jaara ak borom màggal bi samam kooma ngi ndamba ngi soxna jaara mi di ko day di waajtaay wow koy di koy waaja taaru waat ku man góor ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziyaar màggal gi yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén déwéni déwén yu bëree bëri hmm, yàlla nañ ci def lu njort su kowe suñu njort daal maane caam ñu ngi koy gërëm di ko sant lii yëpp moo ko waral moo ñu fi indi te dara jeexu fi ñu ngi koy sant di ko gërëm lu mu am rek def na ko ci Serigne Touba. na dafa judd ci waa kër Serigne Touba papaam di waa di waa njenne mu ñëw na gën ko feddali gën a bëgg waa kër Serigne Touba yal na ko yàlla gën a jàppale jàppale mbooloo mu jullit yal na ko yàlla lafal cet lafal ko mbooloo mu jullit lépp lu mu ci dépensé yal na am lu ko raw lu raw lu ko raw ci darajay maam jaara ñoo ngi sant di gërëm ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñii suñuy dëkkandoo lañu waane ñun ñëpp benn lañu ñoo fi tase yàlla def xol yi booloo nekk benn ñu bokk nuróole li ñu sol kon nag yàlla nañ ko yàlla yàgg a fekkeloo ci daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nag mais kontaan naa mulwan sa dootu kañal kooka ah, bakar kooka way kooka moo ko jar bul bamba soy leen bël mu fees ki say kañal kooka bakkal kooka boy kooka moo ko jële dul bamba soy leen ni bëre mu feese ki sey kañal kooka bakkal kooka boy kooka. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp. di gërëm yàlla di judd ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa di sant sëñ Touba di bëggee maam jaare ci bis bi di dolli tamit nag di gërëm maane ndax maane moo waral lii yëpp dafa njëkk a liggéey ci kër ndeyam ndax man mii ñoo bokk ndey magam laa mu yóbbu ma màkk ba pare mu loolu mooy wane ni dafa njëkk a liggéey ci kër ndeyam ba pare liggéey kër baayam liggéeyal sëñ Touba tamit ñu koy sant di ko ñaanal di ñaan yàlla yàlla lafal ko cat ndax li muy liggéey nii ñëpp la koy liggéeyal li muy def ñun ñëpp la war ndax ñun ñëpp ay taalibe lañu lu ci def rek ñun ñëpp la war kon dañ koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam dolli wéram dolli suturaam di ko ñaanal képp ku ñëw si màggal gi darajey maam jaara Buso ndax maam jaara li mu liggéey géej la ñun ñëpp a siy jëriñu ñu ngi jéem a ci jukkoy maam jaara jukkoy maam jaara mooy muñ nangoo liggéey jaamu yàlla jàppale ndongo yi loolu te lool rek tuuti na ci jëfam waaye ku ci ne rek ci li nga mën rek yaa ngi koy jéem ñuy ñaan xale yi roy xale yu ndaw yëpp ñu roy xale yi soog a sëy ñu muñ jàppale seeni jëkkër muñal ñëpp yaatal seeni xol di gërëm ñëpp di gërëm ñi fi ñëw suñu dëkkandoo daay daayira bi tamit ñu di leen gërëm ñoo dend ay dal ñu baax lañu séq nañ lu rafet séq nañuy teraanga ñuy ñaan yàlla at mu jot ñu fiy tase ñu gërëm tamit télé télévision Bichri Bichri Bichri <laughs> ñu ngi gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullah auzu billahi mina seytaani rajim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba bu wér di sant maam Jaara Buso mi ñu andi fii tey màggal gi neex na tur bi Mbéri Jeng la maa ngi dëkk njaareem kër Cheikh Ibra Fall ñëwoon fii tey jii ni ji poroxaan di màggal si jigéen ju sell ji maam Jaara Buso yàlla nañu am lu mel ni maam Jaara Buso yàlla nañ ko fekkee déwén yu baree baree bari képp ku fi ñëw ren bu déwénee yàlla na nga yëg sa bopp ak yokkute ci kattanu maam jaara bu so mi ñu yaakaar di gërëm borom kër gi nag ñu koy wax soxna maane caam muy ku baax ku neex a dëkkal ku doon taalube ku doon taalu be sëriñ Touba rek ba jeex tàkk ñun ba ñu ñëwee fii yàlla ak moom ñun ñaar ñaari kër yi rek lañ fi fekk ñun ak moom mu jàpp ñu nag te ñoo bàyyi ñun ñu jàpp ko ñaari gor rek ay ànd lu mu xam fee lay ñëw ñun lu ñu bëgg fii la ñuy ñëw te dara jafewuñu fi nag diir ma fi dugg di ànd ak xale yii amuñu fi dara lu ñuy rëccu ci kër maane gii mu def ñu ni boppam damay ñëw fii aw ma fi accès aw ma fi fu may yem lu ma neex laay ñëw fii def ci waañ wi dañuy tibb di ma andil may tibb di la andi te dëkk ba rafet moo ko waral kon ñi ngi ñaan maane li mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw fuuf ci barke borom màggal gii ak suñu dal bee ñu jógee nag muy ñu baax ñële waa Touba Bignona ñoom it ñu leen di ñaanal yàlla na ñu yokk ba yëg ko képp ku fi ñëw andi jàngoro yàlla na ko borom màggal gi saafara képp ku fi ñëw akemam amul te yi dootu am mukk mukk lay som nga dal di waat ndem moom jur Rasulullah ndem moom jur Rasulullah ndem moom jur Rasulullah rek mooy mébétu ma woon ngir ak pas-pasam moo rëy ba tax yombu cee royaat keroog bam yéree kaamil ba yam ci waxaati mu nabiil na dal fay fas mu jur kon tey ci sa saat sëriñ Mor sa sët baa ngi joxal la ko mbir yu rëy la te na yéen cantam bu rëy ko dolli waat sëriñ Mor baa ngi joxal la ko mbir yu rëy la te na yéen cantam nan tey gërëm di way ak a soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wuur na yaanu jox seyxi bamba jaara ma jaara jaaratullaay muy turam wañu tan jaamu yàlla ak liggéey ba doon soxna jaara soxna baalik maam bu sombaañu ne jaara am nga tawfiix ku gëm fabal tudde jaara